le collectif bi ëmb agent yi nga xam ni ñoo nekk ci administration sénégalaise daal di teertoo bataaxal bu njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay moom mii doon ñaax ñi nga xam ni ñooy liggéey ci administration sénégalaise ngir ñu jiital jub ci seenub liggéey mu di loo xam ni kuréel gi jàpp na ni dana jafe lool fii léegi gënuñoo ñoŋal anam ga nga xam ni noonee la ñuy liggéey. corruption pour ñu xeex ko il faut nga xeex euh, lu ñuy wax donc pauvreté. te gis nañ ne véritablement au sein de l'administration il y a des gens qui sont dans des situations euh, vraiment précaires yoo xam ne jéggi dayo la pour éviter loolu yëpp il faut que donc ñu mettre leen dans de bonnes conditions mettre leen dans de bonnes conditions nag mooy fexe comme nu ñu ko waxee euh, diplôme égal rémunération égale. beneen ponk boo xam ne intersyndical bi daanaka déggowu ceeg njiitu réew mi mu di lu soxal lu ñu duppee lanceur d' alerte. lanceur d' alerte yi nga xam ne président de la république mettre nañ ko en exergue si lettre bi ñun dañoo jàpp ne lool du suñ rôle. parce que quand même ñun bañ ñuy recruter dañuy recruter si à des bases ak objectifs yu clair corps de contrôle yi nga xam ne. Euh, euh, ñu ngi fi ñoom ñoo war a def seen rôle def audit yi donc su amee ay malversation wala ay comportement ci ministère yi ñoom ñoo ko war a déceler. ca noonee kon Omar Xame ak ña mu àndal di woor régime bu président Bassirou ay fay ngir ñu jukka ci yamale li ñu duppee indemnité de logement indemnité particulière ak indemnité de suggestion suñu bëggee amal coppite gi ñu namm ci administration sénégalaise.